yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal bismillaahi rahmaani rahiim qul huwa allaahu ahad allaahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allaahu akbar bismillaahi rahmaani rahiim qul huwa allaahu ahad allaahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allaahu akbar bismillahi rahmaani rahim qul audu bi rabbil falaq min charri ma xalaq wa min charri xaasiqin isa waqab wa min charri nafaathaati fi lxuqadi wa min charri xaasidin ida xasad bismillahi rahmaani rahim qul audu bi rabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaas min charri lwaswaasi alxannaas allasi yuwaswisu fi suduuri nnaasi min aljinnati wannaas sadaqa allahu mawlana alazim audu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain ihdina siraat almustaqim siraat allazina anhamta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin bismillahi rahmani rahim alif lam mim salikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin allazina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun allazina yuminuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa bil aaxirati hum yuuqinuun ulaa'ika alaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihuun sadaqallaahu l-aziim bokk ci li fi teew yëpp bokk taalibe yi ñu xaar dañuy tàmbali rek tàmbali la sëriñ Cheikh Bassi mi nga xam ni moom la ndigal li jaaroon ci moom yegg si ci noonu te liggéey bi di tàmbali màggal gi te màggal gi lépp nekk ci loxoom ñuy nuyu mbooloo mi fi teew mépp di di jiital aw moom mi nga xam ne moo fi teewal sëriñ bi te ndigal li jaaroon ci moom ñëw ci nun taalibe yi ñëw ci nun taalibe yi di leen nuyu it ci turu sëriñ Cheikh Latif mi nga xam ne sëriñ bee ko fa yebal si ngir mu gunge sëriñ Cheikh Bass tooywal ko ci jataay bi ak bokki sëriñ Tuubaa yi fi teew yépp sëñ Abdou mu sëñ Mahmadan mu sëñ Masamba mi ngi fi ànd ak mbooloo waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñëw na fi ñëw itam ànd ak mbooloo jàng fi kaamil yu baree bari ci njiitul sëñ Fallou Fall ak sëñ daara yi fi teew yépp nag te jàng-jàng mi ci ab yar ak i teggin eh, ak ak bi di nuyu it waa muqaddamatul xidma ki nga xam ni ñoo ngi dalal fii ci biir jumaa ji te bu nekk ñu di ko def te am ci cawarte lool ak ñi mboolem ñi seq jumaa ji nañ ko daan waxee rek kenn desut kàddu yi nag mooy sant sëriñ bi rek cant gu wóor ñu ko xam ni ñu ngi ko tibb ci suñu xol nun taalibe yépp ci ndigal yu baax yi nga xam ne mu ngi nu koy def ngir bëggal nu lu baax bëggal nu saatatu daari nii tax ak àdduna ak àllaaxira di barkeelu ci bisub Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne amul lu dul moom muy juróom fukki fan ak juróom-ñett ci safar safarul xayr lañu koy tudde weeru jàmm wi muy weer boo bii léppam ci la lépp nee na ci la ko am di ci sant yàlla di sàkkuñu ñu sant le ko ci yàlla moo tax sëriñ bi saabu bu jubsee sëriñ Cheikh Bass mi nga xam ne moo yor liggéey bi mu xamal ko ni ko la sëriñ bi daan liggéeyee ci diir dundam bi mu fi jógee itam mboolem ko fi wutu nekk ci liggéey booba laa bëgg ñu di ko tàmbalee bis bi di ko àggale te moo di laay moo di nëmu tudde boppam mooy Abdullahi wa xadimu rasulihi abdullahi ji mooy alquran xadimu rasulihi ji mooy xasaayit bu guddee sëriñ am sutut ne ko jiite ñu jàng ko ci pénc mi kon loolu rek la sëñ bi bëggoon tàmbali nañ ko ci alquran ji ci suba gi bu ngoonee ñu teg ci xasaayit yi loolu mooy ndigalu sëriñ bi kàddu yi ci des nag ñu bàyyi ko seex Cheikh Modou Basir waaye di ñaan ci barkeb sëriñ Touba li nu sëñ bi bëggal li sëñ bi bëggal ko njabootu sëñ Touba gépp bëggal ko jullit yépp ci bis bi suñu borom defal ko ci lu kawe njortam waaye nun taalibe it liñ ko bëggal yéene ko ci njàng mi yéene ko ci jëf ji suñu borom defal ko ci lu kawe njortam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu cheikh Mouhamadul Bachir ibn cheikh Abdoul Khadir dafa wax ne kàddu gii ko sëriñ Maam Moor mu cheikh Mouhamadul Fadil eh, jox Eh, li tax mu mel ne ku ko delloo du dara lu dul rekk biig la ko sëriñ bi mujj fàttali jataay bi ak akuk amam solo ne ko ndigal lépp ngi ci sëriñ Maam waaye na fi ñëw wéttali ko te santale ko mbooloo mi ci taxawaay bi ndax yëngutu yi bari na lool waaye fu kàddoom jubee rek day mel ni kenn mu saam soxla loolu it mu beral ci muxaddamatul xidma cant gu ràññiku ngir xam na ne waxtu yëpp lañuy sonn liggéey bee ñu bàyyi ko waaye weer wi moom bu ñu leen mënee tuddal weer seen weer la waaye lépp nag yàlla nañ ci dajeeg tawfiixi sëriñ bi wax ne it murit yëpp waaj rek ngir jëm ca bis ba te xam ne mooy bis bu ñu amul lu dul moom te sëriñ bi tax ñu tal ko moom rek la yitte woo woon kon ñu yokk Pastef bu baax a baax loolu la Cheikh Mouhamadul Bachir waxoon ngir bëgg rek ñu xam ne dana jaadu sax ci teggiin waxtu ko sëriñ Maam Moor joxee rek waaye wane gi mu wane rek ne njabootu sëriñ bi ni ñuy doxalee buñ la yónnee sax boo fa demee fekk fa ku mag moo fa nekkal sëriñ bi ba noppi nag sëriñ bi feddlil ko loolu biig moom yebal ko mu ñëw wet li si rek lool loolu rek la bëgg a saxal loolu rek la doon leeral di wax nag ne xéewal yi mi ngi ñëw na ñëpp neggandiku tuuti rek mi ngi agsi xéewal yi mi ngi ñëw te dana doy sëkk bu soobee yàlla ñëpp nañ neggandiku euh, incha allahu bu agsee rek dinañ ko yëgle ñëpp génn ci yokk yi dana doy sëkk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu أمة المصطفى عن كل مفسدة وترحم الخلق يا من جل الخلاء يا مالك الملك يا من جل الخلق ارحم جميع الورى يا هاديا الرجاء معه ما فضلها أبو القلب من ترى بجاه أهدر من لله قد جاء waltuf bina wa xaw bina wa kun lana wa hab lana xusnal kitaami rabbana wa salli ala nabi wa sallim waqt bi xaajata kulli muslim wa tuba